aajo ngeen xam. dafa aajo ngeen xam. mu ne li tax mu wax ne tiib daara la. bokkut ak mbul. bokkut ak tubaa mbul. mu ne loolu bu ngeen ko xamee rek. mu daal di baax. na ngeen xam ne tiib moom daara la. mu ne yéen ñi fi nekk yépp nangeen ngeen góorgóorlu bu baax. ñi nga xam ne dañoo àndoon ak Cheikh Mamadou Bassir ñëw fi seeni waajur ak ñi leen fi fekk si mu ne te ta ak taalib rek taxul leen a jóg mu ne ñooñu ñoo fi nekk mu ne njaboot googu ñoo fi nekk mu ne kon nag njaboot gi li ci am solo ñu xam ne li sosoon dëkk bi la ca gën ci ñoom la ca gën ci ñoom mooy tënku ca bañ fee yittewoo lenn mu ne bañ fee yittewoo lenn lu dul luy taxawal lislaam mu ne ak luy sàmm ak taalibe mu ne loolu moo waraloon seen yitte mu ne dëgg la nag mu ne bu mbooloo xasee am mu ne nga xam ne ñoo bokk lenn lu ñu jublu ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy ñëw fekk si leen ca te fekk si leen ci jublu ga mu ne kon la ca am solo ngeen xam ni ngeen fi nekkee tiib moom ni mu ko waxee woon rek daara la mu ne gannaaw mbooloo moo fi nekk nag mu ne faaw doxinu àdduna du ci mën a ñàkk waaye mën nañoo ànd mu ne loolu moo waraloon Serigne Moustapha mu bi mu doxee ba àdduna dab ko mu ne loolu moo waraloon mu yëkkati dugal ci ay kàddoom mu ne loolu jublu ci woon dara lu dul mànkale rek mu ne ndax njabootu sëriñ Basiiru gi fi nekk ginnaaw ñeneen dañoo ñëw fekk si leen fii mu ne njaboot gi màgg mu ne loolu moo taxoon mu bëgg doxin wi nekk wenn rek lay lay lay lay doxinu dëgg mu ne bu fekkoon lay doxinu doxinu dëgg wa. na doon lislaam rek na doon lislaam rek. akub taalibe. mu ne ñu def seen yitte yëpp ca loolu. mu ne la nga xam ne mooy doxinu àdduna bi nag. mu ne loolu moo taxoon. mu dugal ci njaboot gi. bëgg rek. gën a manqué. gën a yombal doxin wi mu ne loolu moom la fi sëriñ Moustapha Bassirou bàyyi mu ne loolu nag ak defar rekk la mu ne bu mbooloo amee mu ne ñii seen yitte gën a jëm ci lii ñii seen yitte gën a jëm ci lee loolu mooy ñi gën a ñi gën a jëm ci dig dig ci ndigal mu ne loolu mooy ñi gën a jëm wéy ci ndigal rek. ñi ci des it i xalaat. mu ne ñi ci des it am yeneen i xalaat. seen xel nekk ci doxinu adduna wi. mu ne seen xel nekk ci doxinu àdduna wi. loolu faaw dana mat a mu ne loolu faaw dana mat a waxtaane. mu ne loolu moo indi waxtaan wii tey. yéen mbokk yi nga xam ne mu ne kon yéen mbokk yi nga xam ne yéen a fi bokk nekk tey jii mu ne na ngeen delloo ci seen xel ngeen xam ne dëkk bi dëkkum ndigal la ndëkk ndigal Sëriñ Tuubaa moo waral dëkk bi mu ne jublu ci woon dara lu dul fu ñu mën a jaamoo yàlla di ko fa liggéeyal ci lépp lu baax mu ne loolu mooy cosaanu dëkk bii di Touba Typ mu ne ginnaaw gi nga xamee ne faw doxinu àdduna da ci ànd mu ne sëriñ Moustapha Bassirou dafa xamoon ne loolu mën naa ànd ndax lislaam mu ne ndax lépp la boole woon loolu moo doon cosaan li mu ne gannaaw gi la taq li ko dooraam mu ne waaye sëriñ bi moo yeesal lislaam gi. mu ne dëgg la daray nguur mus boole ko ci woon. mu ne waaye suñ borom moo ko jox. suñ borom moo ko jox àdduna ak alaaxira. mu ne ko woon a ñàkk bañ a lijjanti moom sëriñ bi. mu ne lijjant bi nag weesuwul ni ko sëriñ Moustapha moom sëriñ Basiiru xalaate woon njabootuk sëriñ Touba gi fu mu fi mën a nekk ñu jiite liggéey bépp mu jiite wàllu diine ji jiite doxin wàllu doxinu àdduna bi mu ne loolu moom la fi bàyyi loolu nag ngeen xam li ko waral moo di ak defar rek nag mu ne lu dul loolu yàq rek lay doon mu ne feeg yéen a ngi sàmmanteeg di góorgóorlu seenu lislaam sàmmante ak seenu taalibe mu ne loolu defaru defarug àdduna ak alaaxira rek la leen di andil waaye bu ci àdduna àndee nag jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. mu ne rawatina jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. loolu dana tax eh, sàmmin bi sàmmin bi sàmminu njaboot bi. mu ne loolu dana tax njaboot wi. rax lool. mu ne loolu dana tax dana am rax lool. mu ne day tax njaboot gi dootul neex a sàmm. mu ne loolu mu ne loolu rek la sëriñ Moussa moom sëriñ Basiir bëggoon mu ne bëggoon lu mën a sàmm njaboot gi rek mu ne kon li ci am solo mu ne barab bii yaatuwul mu ne nam ko waxoon ne tiib daara la kon ñi fi nekk yéen ñi fi nekk na ngeen góorgóorlu ba muy daara ngeen di ay dongo di ay taalibe ko defee bu ngeen ko defee gën a jëm kanam mu ne day gën a jëm kanam rek da gën a yëg seen yéen seen bopp ak mu ne da ngeen di gën a yëg yéen ci seen bopp ak defaru da ngeen a gis seen ci seen mu ne da ngeen di gis ci seen bopp ak barke gën a yëg ak yiw ngeen gën a yëg ak yiw mu ne yiw woo xam ne mu ne fii ci yiw ci yiw woo xam ne ci àdduna la leen jëlee ci yiw àdduna la leen jëlee jëme leen ci yiw àllaaxira mu ne loolu moo di mu ne fii ak ñoo ngi sax ci jaamu yàlla di sàmmante ak suñu taalibe mu ne loolu suñu defarul rekk lay indi muy defarug biir de ak defarug bitti defarug tey ak defarug ëllëg mu ne lu dul loolu mu ne ak tumuranke rek la ñu indil mu ne ak bekkoor rek la ñu indil yàlla nañ ci yàlla musal mbàkke mu ne ak xel yu gëlëm rek lañuy ñu indil mu ne xol yu lëndëm rek la ñu andil. mën naa ko lim fii ba mu guddi lool. mu ne mën na di ko lim fii ba mu guddi lool. te du jeex mukk waaye tënk gi rek. mooy loolu. mu ne na ngeen góorgóorlu. mu ne delloo ci seen xel. mu ne ña ca nekkoon. nañu gën a gindiku bu baax ñu xam ne loolu mooy seen njariñ ña ca gindikuwul nañu gindiku xam ne leneen leneen lu mu doon te ngeen xam ne leneen lu mu doon tumuranke rek la leen indil mu ne te tumuranke bi mooy li ci gën a woyof mu ne foofu rek lañ mën a yem ak yéen na ngeen góorgóorlu bu baax